la candidat dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen kaay ñu xëyanto yéen kaay gi di réew mi ko di jenxëy ci rubrique homme du mois février bii mu daal di koy jagleel Abdoulaye Dieye mi nga xam ne mooy directeur général bu aéroport international Blaise Diagne ñu jiital ko fa ñaar fukki fan juróom-ñett ci weeru septembre atum bi nga xam ne moom la ñu génn li nga xam ne moom la Abdoulaye Dieye bëgg maanaam mboolem loo xam ne ay normes de sécurité la jëm ci wàllum aviation mi quotidien nee na Abdoulaye Dièye mi nga xam ne moom la ñu jël jiital ko aéroport international Blaise Diagne xelam màcc na jëm ci wàllum transport ak yu ci ajo ndax nekk na fi directeur général bu Socotra SA journal bi di réew mi quotidien nee nag bu passé nag taxawaay bi nga xam ne jamono ji maanaam amee ko ci AIBD ak yaakaar ji nga xam ne njiitu di président Macky Sall am na ko ci moom ngir mu daal di suquri aéroport boobee nag Sall fan yi ñu génn ca diwaanu Thiès taxawaayam ràññeeku na loola yéenekaay gi nee na li nga xam ne moo waral bu génnee Thiès gaa yi topp ko mooy lu jëm ci wàllum social bi nga xam ne ma ngi ko fay amal li am ci yéenekaay gi di réew mi ko di jeex xëy diñu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum tension politique bi ak élection présidentielle yi nga xam ne moom la ñu dëgmal loole nag daat nay tax Seydina Issa Laye Thiaw daat nay yëkkate ay kàddu daal di woo askanu sénégalais ci lu jëm ci wàllum jàmm ak wàllum stabilité réew mi maanaam réew mi ànd akuk dal journal bi du source a ak ñooy waa Yoff jamono jii na ñoom mer nañu yëkkate nañu ay kàddu ndax nee nañu am na loo xam ne mënuñu ko nangu ci réew mi maanaam lu toll ci fukk ci ay nit rek bëgg nekk ci réew mi di buum di buumi ci askan woo xam ne toll nañ ci 17 millions de sénégalais waa Yoff nee nañu waxtaan ba juboo ci lu jëm ci wàllum jàmm ba ay élection di jub si te bu élection yi passé ñu sànniwaat ko fële loolee amul benn njëriñ bu ñu bëggee jàmm am bu ñu waxtaanee ba déggoo maanaam kenn ku nekk daf koy fonk waaye bu ay jotee ñu ne nañu leen waxtaan nañu leen jàmmoo bu élection yi passé ñu delluwaat la ñu nekkoon loolee amul amul benn njariñ journal bi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu élection présidentielle 2024 yi nga xam ne moom la ñu dëgmal kan moo la mën a wax na la la ci opposition bi ak ci pouvoir bi kenn xamu ci lenn journal bi ne na la ko waral mooy parrainage bi nga xamante ni opposition bi nag ñu bari na ñu leen a segg mën nañu leen a xañ ñu bokk ci élection présidentielle 2024 jaarale ko ci li nga xam ne mooy parrainage moom la ñu yoro moom jamono ji lépp lu mu mën nag ngir néewal bi ma nga ca te Ousmane Sonko Karim Wade Khalifa Ababacar Sall seeni mbir ba léegi dafa daal di gëllu góose yéen kaay gi te enquête nee na élection présidentielle 2024 jamono ji dafa lëndëm ba maara detaale ndax Macky Sall di Ousmane Sonko di Karim Wade di Khalifa Ababacar Sall kan moo ci nekk candidat loolee ab laaj la kii sera candidat loolee mooy laaj bi nga xam ne enquête yéen kaay xëy na di ko daal di ndax nag bu dee Ousmane Sonko Karim Wade Khalifa Ababacar Sall seeni mbir maa nga ca kanamu yoon te Macky mii nga na nag lii daat nay firndeel ne démocratie sénégalaise bi dafa daal di paan maanaam démocratie ci réew mi jamono ji moo nekk ci ay jafe-jafe guddi yu bët séddugu la toll ba heure bi kenn mënu laa wax kan mooy dem ci ay élection yéen a kaay gi di réew mi ko di cee xëy di ñu xibaar naan ñu avocat yi Ousmane Sonko yi ginnaaw bi ñu jëlee dossier am ak Adji Sarr yóbbu ko chambre criminelle dañoo clamé woon ci kanamu chambre d'accusation ngir dossier bi ñu bañ koo jël di ko yóbbu ca chambre criminelle waaye loolee nga xam ne moom la avocat yi Ousmane Sonko yi bëggoon chambre d'accusation bi daf ko daal di gàntal yéen a kaay gi di Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu cour d'appel ñoom nag daan nañu confirmer ne Ousmane Sonko ak Adji Sarr ak Ndeye Khady Ndiaye dinañu leen yóbbu ca kanamu chambre criminelle daal leen di atte yéen kaay gi de Le Quotidien yor yor nee na avocat yi Sonko yi cour suprême la ñu jëm cassation la ñu jëm ci dogal bi nga xamante ni cour d'appel daanu koy jël yéen kaay gi de Le Regard nee na ji ubbil nay buntam Ousmane Sonko yéen kaay gi di Rewmi Quotidien xëy ci coppite yi nga xam ne amal nañu ko ci lu jëm ci wàllum yoon maanaam ci wàllu magistrature daal di téye ci mbir mi ay nomination yoo xam ne la mu jàpp mooy Macky Sall dafa bëgg liquider ay adversaire politique am yéen gi di Walf Fadjri nee na chamboulement bii nga xam ne def nañu ko ci magistrature bi mbaadu nag ab hold moom la gars yi waajal dafa mel li ram sañak ba la jëm te bu amee kër du baax journal bi li mu njortu ak li muy laaj nee na mbaadu gars yi dañoo bëgg a luubal élection yi nga xam ne moom la ñu dëg ma moo tax ñu andi changement ci biir magistrature bi ndax li nga xam ne moom la ñu nemmee ko maanaam Macky Sall ay nitam la jël daal di leen di déplacé journal bi nee na am nañu njortu ni dafa bëgg a li nga xam ne mooy ab victoire am ci élection présidentielle 2024 yéenekaay gi de Le Quotidien yor yor moom tim xëy samp ab laaj nee na lu jëm ci wàllum chamboulement bi nga xam ne def ñu ko ci magistrature bi mbaadu nag Macky Sall dafa bëgg a écarter ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ci élection présidentielle 2024 loole la Quotidien yor yor xëy di laaj yéenekaay gi de Les Échos ñu xëy fekk fa Lat Diop Lat Diop nee na moo war a tere mu duggati Touba gi du l'observateur xëy du ñu xibaar naan ñu élection présidentielle 2024 jamono ji gis nañ ne coalition Yewwi Askan Wi bëri na ci ñoom ñoo xam ne nee nañu candidat lañu waaye nag candidat yu bëri ci biir Yewwi Askan Wi maanaam baaxul si ñoom yéen kaay gi di libération nee na lu toll ci fan fanweer ak benn ci militant Pastef yoo xam ne yóbbu nañu leen kaso keroog bi nga xam ne moom la ñu waroon a àtte Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang ak coow li nga xam ne moo si mujjoon a am dafa am ay militant Pastef yu ñu tegoon loxo démb lu toll ci fanweer ak benn dugal nañu leen ci kaso bi journal bi di bés bi xëy duñu nañu ca diwaanu Mali am na ñetti soldaar sénégalais yoo xam ne rey nañu leen fa yéenekaay gi di 24 heures xëy di ko dëggal nee na trois militaires sénégalais yoo xam ne faat nañu leen ca diwaanu Mali am na si juróom ñoo xam ne am nañu ay gaañu gaañu maanaam juróom ñoo xam ne dañoo blessé yéenekaay gi de la témoin xëy ñu xibaar naa ñu rapport Cour des comptes bi bi nga xam ne jëmoon na ci xaalisu Covid 19 bi yéenekaay gi nee na waa dikk semaine bi nga xam ne moom la ñu dëgmal danañu yóbbul ay convocation ñi nga xam ne ñoo saax-saaxee alul réew mi ñi luubal alul réew mi ñi sàcc alul réew mi ñi lekk alul réew mi covid 19 bi le témoin mooy wax du suñuy kàddu dañuy nettalee yéenekaay gi di Stades xëy duñu xibaar naan ñu Ligue des champions Real Madrid niki démbu daane troxal Liverpool ci biir stade am di Anfield juróomi bal ci ñaara yéenekaay gi di sunu làmb xëy ci combat bi war a dox diggante Sa Thiès ak rëg-rëg journal bi nee na rëg na nag dugg na géej waaye ay yooni yoon dafa jaloore ndax nag Sa dina mën a freiner rëg-rëg loole la journal bi di sunu làmb xëy di laaj